baabul xabaanati li mooy buntub yar alxabaana bi ñu ko waxee mooy yor gone gi di ko téye di ko sàmm di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko sang di ko tëral di ko yëkkati toppatoo boobu nga xam ne jigéen rekk ko man lañu tuddee alxabaanatu yor boobu bokkewut ak war mu dund baag koddaay laag dëkkuwaay ba bu ñu nee yaay wala maam mu jigéen moo war a yore gone gi noonu itam bu tey kilifa gu góor ga moo war a gàddu dund baag koddaay la jigéen ja ko amee moom la ko ci war rek mooy sàmm gaag toppatoo ga rek kan moo ko sañ yore nag te kenn du ko xëccoog moom moom lay bëgg a wax jigéen bu tàggu jëkkëram am ak moom doom moom jigéen ji mu amee sañ-sañu yore gone ga di ko toppatoo bu dee ku góor ka ba keroog muy kàllafe mën a dem ak boppam bu dee ku jigéen ka ba keroog ñu koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkër ja mën naa am nag sawus tax ñu ne ko sañatoo ko yor waaye daal jàppal ne yaay ci boppam moo gën a amee sañ-sañu yore doom ja noonu bu dee góor ga ba ba muy kàllafe bu dee jigéen ja mu dañ koy may jëkkër ba jébbal ko ko su ko bàyyam fasee bu sañ a xëccoog moom naa ko may naa la sa baat waaye damay téye sa doom bu ñu ne yaay ji moo amee yore ga nag du tee baay ba ba tey moo warlu dund baag koddaay la yaay ja yor baag toppatoo ba rek moo ko ca war waaye dund baag koddaay la ak yooyu moom ba tey baay ba la war xale bi bu fekkee yaayam nekku fa mbaa yaayam a nga fa waaye dafa amaat yeneen jëkkër joo xam ne jaambur la ci gone gi kon nañ seet maam ju jigéeni gone gi jox ko ko maanaam ko jur yaayam rek moo sës ci yaay bu fa nekkut ñu seet ndeyam ju ndaw ndeyam ju ndaw dañu njëkk a seet ki bokk ndeyam ndey ak baay teg ca ka bokk moom ndey rek maanaam ki bokk ndeyam ndey rek mujj nag ka bokk ndeyam baay dong ndax dañuy jàpp ne wàllu ndey mu ëpp ak ñëwante moo tax bu dee fii ci yor bi moom wàllu yaay la ñuy jiital doo caa teg wàllu baay suñu weesoo ndey ju ndaw nag ka ci war a sës mooy koo xam ne ndey ju ndaw la ci yaayi gone gi maanaam jigéen joo xam ne day maam ci xale bi ndax jur yaayam dëgg-dëgg waaye daa bokk ak ka jur yaayam kooku mooy ndey ju ndaw yaayam moo sës bu jàllee nag maam jigéen ji jur baay su fekkee ne maam jigéen ji jur baay nekku fa baay door caa sës bu ñu ne baay nag moo amee sañ-sañu yore ga faaw mu amee jigéen ji ko koy topp tool ndax toppatoo bu war ci gone góor mënu ko jigéen a ko man daañu leeral ne saa yu nee góor sàngam moo war a sës ci amee gone gi rek faaw na góor googu amee jigéen joo xam ne moo ko koy toppatoo bàyyi nga mujj wax su fa bàyyi nekkul nag ba am lu ko tee mën a yore ñu jàll ci mbokk mu jigéenam gone gi mbokk mu jigéen dañuy jiital ka bokk ak moom ndey ak baay teg ca ka bokk ak moom yaay mujjee ko bokk moom bàyyi su fekkee ne seet nañu seet gisuñu menn mbokkam mu jigéen du ko bokk moom ndey ak bàyyi du bàyyi du ndey rek kon ñu seet bàjjanam bàjjanub gone gi dañuy jëkkee bàjjan ba nga xam ne daa féete ci wàllu ndey ak bàyyi maanaam bokk ak bàyyam ndey ak bàyyi teg ca bu bokk ak bàyyam yaay rek mujjee bu bokk ak bàyyam bàyyi rek gannaaw bi mu waxee wax ji wane ne ña war a amee gone ka bu ñu limoo dañuy seet ka nga xam ne moo ci gën a mën a yor ñu jox ko ko ba yamoo ci googu wàll ñu seet kan moo ca mag ëppale ci at ndegam ñoo yemoo ci wàll yépp buñ tollee at ñoom ñépp nag ñu tegoo koy bant gannaaw ba loolu jàllee nag boo weesoo ñëwee nga xam ne ñëwee kenn nekku fi da nga ciy teg jigéen joo xam ne yaayam ak xale bi ñu bëgg a yor tey yaayam ak xale bi ñoo bokkoon ndey ak baay baa ñu bokkoon ndey baa ñu bokkoon baay ndax weesu woon nga mbokkum jigéenum xale bi ci boppam ngay indi nag léegi doomam doom bu jigéenam moo sës foofu bu jàllee nag ñu seet mbokk mu góor moo xam ne moo gone gii ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk ndey wala ñoo bokkoon baay duñ seet mbokkum góor ma ci boppam doom bu jigéenam la ñuy seet ndax fi nga toll nii dañoo jublu doom ju jigéen yi mbokk mu jigéen wala doom ju jigéen yi mbokk mu góor bu ñooñ jàllee nag nga teg ca ka ñu dénk gone gi fekkee ne baayam laata muy faatu am na kum dénkoon gone gi te ñee nga weesu ñëpp kenn nekku fi kon kookee baayam dénkoon gone gi moom lañ koy jox moo amee sañ-sañ yëpp yore ga bu fekkee ne kooku amut ñu door a ñëw nag ci mbokk mu góor waxagoo mbokk mu góor dangaa waxoon mbokk mu jigéen ak doom jigéen ni mbokk mu jigéen ak doom jigéen yi mbokk mu góor waaye mbokk mu góor ci boppam yaa ngi koy door a tudd su fekkee ñee nga weesu amuñu dañuy seet mbokk mu góor moo xam ne mën naa bokk ak xale bi ndey ak baay te mooy jiitu nga bokk ak moom yaay rek topp ca nga bokk ak moom baay nag mujj su mbokk mu amut ñu teg ci maam mu góor maam mu góor foofu lay door a sës day wane ne su fekkee mbokk mu góor amut maam mu góor amut nañ seet seeni doom dañuy jiital doomi mbokk mu góor te fekk na waxan nga mu jigéen ma fii nga toll mu góor maa tax ñu wax bu fekkee gisuñu doomi mbokk mu góor nag ñu seet doomi maam ju góor ñu koy tudde baay bu ndaw yu bàyyi tax bàyyi tax ba dañuy jiital wàllu ndey ak baay ga teg ca wàllu yaay ga mujj wàllu baay ga day wane ne bu fekkee ñi nga wax ñëpp amuñu fi waaye gone gi ak ay mbokkam dañ leen daan moom nañ seet ñu leen daan moom ci cosaan ku ci gën a jege yore gone gi maam ji góor ci yaayu xale bi lay wane ne bu fa nekkee kat mooy jiitu nga door cee teg al mawlal adnaa maanaam yaayu gone gi bu fekkee maam ju góor a ma nga fa kon maam ju góor joojee kon maam ju góor yi yaayu gone gi mooy jiitu ñu door cee teg al mawlal adnaa maanaam ñu war ca teg koo xam ne xale bi ak i mbokkam ñoo leen daan moom ca démb ñu doon seeni jaam kon bala ngaa tudd ab mbaa yàlla maanaam kuñ daan moom démb ne ko yaa yore gone gi xoolal ba xam maam ju góor yaayam ma nga fa am déet ndax maam ju góor yaayam moom gone gi moo jiitu kañu daa moom démb door caa topp mel neen loolu waxoon nañ ko laata mu di ko wax moom mi taalif ñu amee sañ-sañ yor gone ga bu ci amee koo xam ne daa féete ci wàllu ndey ak baay am ci koo xam ne daa féete ci wàllu ndey rek am ci koo xam ne daa féete ci wàllu baay rek kon ka féete ci wàllu ndey ak baay moom lañ koy jox moo ci gën a yey bu jàllee nag ka féete ci wàllu ndey dong moo cay sës ndax dafa mel ni wàllu ndey mu ëpp am ñëwante ñu door caa teg nag ka féete ca wàlluk baay doom niki bu fekkee ñu war a yor dañu di ay mbokk wala ñu di ay doomi mbokk wala ñu di ay bàjjen wala ñu di ay bàyyi ndaw ñoo ñëpp li ñu wax mën na caa am wàlluk ndey ak bàyyi ak wàlluk ndey doom ak wàlluk bàyyi doom su boobaa nag ñu tegalee noonu ñi nga waxoon ñëpp ne am nañ sañ-sañ yor gone gi faaw nga seet ca juróom-ñeent ci sart yi muy bëgg a wax bu ci amul rek kooka du mën a yor ñu bàyyi ko seet keneen bi ci jëkk mooy na doy sëkk ci mën a yore gone ga su fekkee dafa amee ak laago wala mu màggat ba ëpp nga xam ne dana ci am yéene waaye du ko mën nañ ko bàyyi te seet keneen amaanatul ñaareel bu mooy kóolute na am kóolute mooy nañ ko wóolu ci wàllu diine wóolu ko ci wàllu jikko bu mu nekk kàccoor boo xam ne day naan di màndi daanu ci mbedd mi wala muy def yeneen xeeti caay-caay yoo xam ne laq-laqalu ko da koy fisal wala muy dox di po xeeti po yoo xam ne ku ne xam na ne ku amee mbañu mu rus du ko fo yu mel noonu na ca mucc bu mu amee it yenn jikko yu bon a bon yoo xam ne dana ko wàll gone ga dañ ko wóolu kon ci wàllu diine ak ci wàllu jikko muy ñaar xaqlun ak xel mooy ñetteel na ame xel moo xam ne du faral di tàggoog moom koo xam ne doful sax ndox gu sax ak moom di wéy waaye day def léeg-léeg ndox gi dikkal ko kooku du mën a yor gone ndax xëy na jamono ka ndox ga dikkalee mu gaañ gone ga ñeenteel mooy nu mucc ci tawat ji wàlle mel ni ngaana mbaa siti ak yeneen tawat joo xam ne mën naa wàlle bu ko xasee amee rek kenn du ko jox gone ga ndax dañuy bañ mu wàllu ko ko rushduhoo ak rafetug soppandikoom ci alal rushdu day firi ak jub ni nga ko miine waaye dañ ci jublu mu rafet nu muy soppandikoo ci alal bu xasee nekk yàqkatu alal boo xam ne li mu yor rek def ko ci la ko neex la ko neex mën naa bañ a araam sax waaye du ca seet lu jaadu lu mu yor rek topp ca bànneexam yàqte ko ku mel noonu kenn du ko jox gone mu di ko yor juróom-benneel mooy fa mu nekk na am kaaraange bu dee foo xam ne dafa ñàkk kaaraange lool ba nga xam ne mënees naa jekki-jekki song ko rek gaañ ko gaañaale gone ga kon kooku dee su ko jox gone bu fekkee ne kay amee gone ga day jigéen kon day fekk amul jëkkër wala jëkkër ja mais di mbokk ci gone gi waaye bu amee jëkkër joo xam ne jaambur la ci gone gi kon moom des ko jox gone gi mel ne yaay mi nga njëkkoon a wax ni moo njëkk am sañ-sañu yore gone ga bu ko jëkkëram fasee li fekk muy amaat jeneen jëkkër moo tax ñuy wax waaye bu amaatee jëkkër joo xam ne jaambur la ci gone gi ñu daal di koy bàyyi seet ka sës ca moom bu amaatee nag jëkkër joo xam ne moom du jaambur ca gone ga loola kon du ko yàqal yor ba waxoon naa ko ci gannaaw bu ñu nee góor sàngam ni ki bàyyi mbaa mbokk mu góor mbaa baay bu ndaw mbaa doomi baay bu ndaw moo sës ci yore ga faaw day amee jigéen joo xam ne moo ko yoral gone ga ndax gone jigéen rekk ko mën a yor yëkkateeg tëral solal ak summi sang ak yu demee noonu jigéen rekk ko man boobu yor góor mënu ko kon biñ ne góor sàngam moo sës ci yor gone ga faaw na amee jigéen joo xam ne moo koy féete wool loola bu ñu nee jigéen sàngam moo war a yore gone gi waxoon nañ ne gone gi day am kilifa gu góor goo xam ne mooy amee dund ga ak koddaay la ak it bu tolloo ci mata yar nit ki mata yóbbu fu mu jàngee diineem mu yóbbu ko fa góor gi nga xam ne nag moo amee loolu mel mel ne bàyyib gone gi tàggoog yaayi gone ga foofu la wax ne faaw dañuy sart jigéen ji nekk ak kilifa gu góor gi ni ki bàyyi moomu ci benn barab waaye kilifa gu góor ga bu ne damay toxoo fii dem dëkki feneen te jigéen ji moom ne fii lay toog tey seet ne diggante bi sore na sore goo xam ne mat na juróom benni bariid juróom benni bariid boo ko seetee ci tolloo bi gën a néew day mat téeméeri kilomètre ak juróom benn jëm juróom ñaar kilifa gu góor ga nga xam ne ma amee topp topp gone ga bu fekkee daa wax ne day toxu te fa muy dem tol na noonu kon jigéen ji nga xam ne moo amee woon sañ-sañ yore gone ga su ma ne ànd ak moom toxu ne ko kon ba tey yaa amee sañ-sañu yore waaye su fekkee dane moom mënta ànd ak moom toxu kon jigéen jooju ak yoram jeex na maanaam wàllam jeex na ci yor ga nañ seet keneen su fekkoon na it góor gi ci boppam moom toxuwut waaye jigéen ji ci boppam yore woon gone gi moo nar a toxu bàyyi fi kilifa gu góor googu dañ koy wax ne ko ndegam yaa ngi toxoo noonu bàyyi keneen yor ndax faaw gone gi moom fa kilifaam gu góor nekk rek fa la war a nekk su fekkoon ne nag kilifa gu góor ga day tukki tukki bu sori ba wees sax ni waxoon léegi waaye dem dellus rek la loola kon du yàqal jigéen ja nga xam ne moo doon yor gone ga ab yoram